mbokk ñuy teewlu ci Sénégal set ñu ngi leen di nuyu tey ñu am mbégte dalal ci seen émission entretien avec njiitu kuréel gi di mouvement Claire Vision door seen Sène door ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay di nuyu euh, seen internautes yëpp yu leen di seetaan ak seen mhm. téléspectateurs yi. Clédor Sène wax nañ ko nga jiite mouvement bi di Clair Vision ñuy rappeler aussi ne candidat nga woon ci élection législative yu weesu 2017 ci hmm. liste crédit bu professeur Amidou Dat léegi question bu ñu lay posé njëkkee mooy Clair Vision mouvement la dëgg la waaye day ut mandat wala day des ci société civile bi bon out mandat xaw ma loo bëgg tuddee pour out mandat euh, c'est-à-dire euh, Clair Vision mandat électif mandat électif euh, hmm. waaw je maa ngi ci ñëw Claire Vision d'abord gindi askan wi la sant ça mhm. s'appelle gindi askan wi mhm. mouvement citoyen la boo xam ne euh, dafa dafa inscrire dans la citoyenneté mais effectivement euh, bokkoon nañu ci législative yi passé mhm. parce que noonu la ñu mën a exercer suñu citoyenneté parce que débat public bi ak vie publique bi mënuñu ko bàyyi kese ak politiciens classiques yi wala ak parti politique classique yi parce que sénégalais bu nekk euh, dafa war a def loxoom ci liy soppi réew mi te assemblée penc la boo xam ne mën nañ fa soppi lu bëri parce que nit ñi daf dama foog ni dañu dese xam rôle lu député gis ngeen ñun dañuy communiquer lu bëri ci transparence ak bon gestion ci ressources naturelles yi euh, te doon na gën a yomb ci ñun ñu mën a interpeller directement le ministre concerné à l'Assemblée nationale doon na gën a yomb ci ñun ñu am laissez-passer euh, permanent bi ñu jox député yi nga xam ne mën nga accéder au site minier ak tous les sites yëpp ñoo xam ne dafa laaj contrôle bu ñu bañee sax am nga pouvoir requérir la force publique mm-hmm. euh, mën nga euh, commandité lu euh, ay experts ñu defal la enquête nga déposer comme comme ubbi commission d'enquête parlementaire mën nga def ay amendement ci ay lois yi ñu naan ay ñun suñu alal quatre-vingt-dix pour cent yi la tubaab bi am ñun dix pour cent donc député li mu mën a def dafa bëri du rek euh, session nga ñëw tàccu voté budget loolu du rôlu député donc ñun effectivement euh, euh, bëgg nañu teew ci penc bi ñuy décider parce que ñun wóor nañu ni ministre bu jàkkaarlook ñun di ñu wax lu leer parce que li nga yor ci dossier ñun du ñu ump. Mm-hmm. waaye aussi dem assemblée nationale dafa am peut-être lu ma wëndu boo doonul majorité aussi pour nga dugal yenn enquête parlementaire yeeg yi ni mel aussi day xaw a jafe. waaw mais même bu dee benn nit la. gis nga gis nga euh, fi mu nekk nii. Mhm. Euh, opposition bi ak pouvoir. Mhm. ñu ngi ci euh, ay négociations autour du processus électoral. Mhm. parce que ni ñuy falee député ak élus locaux liñ ci njëkk war a soppi mooy mode de scrutin bi scrutin majoritaire maanaam raw gàddu lu antidémocratique la boo mënul def proportionnel intégral sax nga def li li ëpp proportionnel nga xam ni ki nga xam ni moom mooy falu. Euh, goxam moo koy fal et non liste nationale boo xam ni parteem wala kilifaam moo ko fay teg ba nga xam ni daf koy redevable naan ay man député diw laa man kii moom fi teg ki moom fi teg donc loolu lu ñu war a seetaat la loolu bu ñu ko seetee rek assemblée am une te réelle nga xam ni société civile bi da ciy dugg en masse euh, parti politique yu bees yi force politique vierge yi euh, vierge yi mooy ñu musul exercer pouvoir dal daal di ci gën a am seen place bu ko defee même bu ñu amul majorité sax ñu am minorité de blocage am ay groupe parlementaire nekk ci ay commission exercer suñu rôle contrepoids ak contrôle de l'exécutif waaye kon mën nañu xaar Clédor Sène mu samp ndëndëm ci élection législative 2022 mën nañ ko xaar incha allah certainement bu ñu fi yàlla bàyyee question rapide réponse rapide affaire Bougazelli sa gis-gis sama gis-gis ne dafa trafiqué faux billets sama gis-gis mooy mhm. euh, jot na suñu corps de contrôle yi ak suñu force de sécurité yi ak suñu magistrature bi wax suñu magistrature bi ñu assumer seen responsabilité parce que dafa am ay doxalin yoo xam ne wàññi seen doole la jàppoon nañ fi nit phobie ak ay firnde yu leer ñu dem ba ci biir ñu ay Kleenex la jàppaat jàppaat nañ fi nit mooy mhm. Bougazelli bi ngay wax mu ngi nekk ci plateau de télévision yi di accorder ay émission d'une heure de temps alors qu'il est le coup de la loi tout député qu'il est mhm. alors que démissionné na rendre na passeport diplomatique u famille mag yooyu yëpp pourquoi le lui a-t-on imposé pourquoi kooku ne fait à l'aise avec un, un fort malgré la gravité des accusations qui pèsent sur lui man mii defuma dara de mais dikk débarqué na sama kër yéen guddi pour embarquer ma te ba léegi génn nañ ci te amul lu ñu ma reproché gis ngeen benn journaliste Jean Meissa Diop fajar la ñu dugg ci këram jaxase foofu yëpp ñu dafa am lu ñu doon seet bat Barthélémy Dias jàpp na alkaati ci biir otoom ba léegi mujjul fenn maanaam deux poids deux mesures warul am c'est-à-dire bi def liggéeyam file cible ba appâté ko ba nax jàpp ko mu gis autorité supérieure di jéem a aar ki nga xam ni moom moo nekk en faute loolu euh, dafa laaj une une une une une révolution des corps de contrôle des forces de l'ordre de la magistrature dégg ngeen drogue jàpp nañu x kilo manqué na y kilo ci biir port bi militaires yi jàpp nañu temps manqué na temps plus de cent or bi ñu dellu si ci aéroport jas bi muy doog a installé wu jàpp nañ fa cinq cent vingt kilos d'or ci aéroport bi parce que am na un jour la semaine bëgguma ko cité boo xam ni fa la ñuy jàll ci la or bi dem Suisse léegi ay dysfonctionnement xam naa sax moo taxoon ñu teg ci loxo mais 520 kilos yooyu d'abord quelques jour après dañ ci rey benn douanier Kër Massar fii balu bopp tey ñu wax version bi suba ñu léegi kenn déggatu ci déggati nga dara ci enquête boobu. waaw ñooñu ñoo doon contrôler la piste de l'aéroport loolu nax saay la mais quantité or boobu. mais dafa dafa dafa manqué dafa manqué 19 euh, kilos te saisir nañ ko de mais manqué na 19 kilos. république warul doxee noonu c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a ilif yow boo nekkee opposant boo deful sax ñu coller le motif xoola Khalifa Sall ni ñu gaay woon ci mbiram xoola Ousmane Ngom bi ñu koy jëli Kolda xaw ma hélicoptère ak ay ay ay corps d'élite ñoo wàcc foofu manu militaire yi yóbbu ko alors Bougazili il donne des émissions sur les plateaux de télévision am na deux poids deux mesures boo xam ne man de tey jii su ma doon alkaati wala gendarme dina ma metti lool lool lool loolu ma def sama liggéey ba noppi ki nga xam ni euh, euh, euh, moom laa jàpp ni dafa dafa dafa war a leeral taxawaayam ci yoon ma gis ko mu am ay privilège kàddu gu mujj gi mooy maa ngi maa ngi jéggalu auditeurs yi parce que xam naa ni wax bi gudd na <laughs> man bu ma fi nekkoon ba suba aussi du tere dinaa am lu ma séddoo ak yéen Euh, parce que bëgg a bokk ak yéen rek moo tax ma sonn ci wax ci intérêt Sénégal ci koom-koomu Sénégal mm-hmm. parce que pays pauvre très entêté la ñu déjà mm-hmm. euh, donc suñu amee euh, lu ñu yàlla may muy suñu ressources naturelles yi mm-hmm. war nañu fexe ba mu jëriñ ñëpp bañ a jëriñ benn clan loolu rek moo waral wax ju bëri ci salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf kon mbokk yu ñu doon teewlu ci Sénégal set ko ñu doon dalal njiitu mouvement Claire Vision Clédor Sène waxtaan wi nag nu mu ko waxee trente minutes la woon waaye aussi dafa soulever ay affaires yi nga xam ne ni tamit day intéressé sénégalais moo tax ñu xuus noonu ba mu xaw a yàgg tamit ñu koy rafetlu teewaayam ñu yàgg ko topp tamit lool waaye tey ñu am euh, mbégte dalal ko tey ci suñu studio di ko gërëm di ko sant di leen gërëm it di leen sant di leen dig daje àllarba bii di ñëw ci beneen entretien avec jërë ngeen jëf.